bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi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 di leen baal di ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal di ñaan mu nangul nu sunuy jamu yépp ñaan mu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppe al misbaax yi ñoo ngi nuyu jàngkati alxuraan yi ñoo ngi nuyu jàngalekati alxuraan yi ñoo ngi siyaare bu baax a baax képp koo xam ne mi ngi bàyyi xel jotaay bi rawatina ñi nga xam ne ñi ngi am taxawaay rawatina kilifa yi nga xam ne ñi ngi am taxawaay itam ci penc mi. taxawaay ci penc mi léeg-léeg mu doon taxawaayu kuy fàttale am ñoo xam ne it dañuy taxaw taxawaayu jël position ci lépp loo xam ne xew-xew la boo xam ne gis nañ ne suñuy jikko nanguwu ko suñum réew itam xamewuñ ko ko woon waaye lislaam itam ñaawlu na ko loolu nag coono yu bari da cee nekk moo tax ñu bari mën nañoo jël genn wet gi waaye wet googu mën nañ koo bañ a jël ndax fi yaa ngi digle lu baax te yem ci rek mën naa am doo jot benn contre attaque buñ lay dóor wala kuy dal ci sa kaw waaye nag boo jëmee ci tere lu bon moom faaw nag ña ca nekkoon jóg songu la waaw faaw ña ca nekkoon jóg songu la boo naan def leen lu baax nangam ko ko def nangam nangam ko def nangam ba suba dañ lay dégg rek ñi mën a def def ñi mënta def bàyyi waaye nangam moom bu ko kenn def ak kenn du ko fi defee moom ña ko doon def. ak ñu ko bëgg a def ñooña moom faaw ñu am baat yuñ la teg defe naa ca ndénkaane yi Luqmaan ya ak doom ja bokk na ca lam ko waxoon ne ko na ngay digle lu baax waaye ba mu ko waxee na ngay tere lu bon da ko caa tegal ne na nga muñ nag la la cay fekk na nga la nga xam ne moo la cay fekk baadu na sosoo ba léegi nag fu penc masa toll dana am ñoo xam ne borom bi subxanahu wa taala dana leen tawféexale ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw naan déedéet nangam ji nangam ji du fi ame yal na yàlla kàttanal ñi nga xam ne ñi ngi am taxawaay yooyu yëpp ci réew mi booy wax sax kilifa ak diine dëgg-dëgg ñooñu la yal yàlla defal leen barke ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci ni ngeen di toppe jotaay bi di bëgg itam ci dëgg-dëgg e, retour yiñ ci am retour yiñ ciy am loolu du jubluwaayu waxtaan wi dëgg-dëgg ci ñun yàlla seede na ko. waaye nag danañu def mbégte lool akub soññee ci ñun ba nga xam ne buñ koy waajal ba di ko def si li ci nekk ci ay coono yëpp oyof ci ñun ndax yëg gi yëg ne def ngeen yitte ju tol noonu ci di xaar suñu kàddu ci waxtu wi ak lum teel teel yàlla na gën a yàgg yàlla na yàlla defal ñu e, tawféex ndax lépp xaj na ci démb bi ma yëkkati jotaay bi maa ngi doon waxtaane sujjóot yi nekk ci alquranul karim ndax alquran waxoon naa ne daa bokk ci teggin yi kuy jàng ci ba agsi ci barab yi nga xam ne dafa am sujjoot mu sujjootal ko jotoon naa cee tudd lu mat juróom-ñetti sujjoot maa ngi yemoon ca sujjoot ba nekk ca suratul furqaan te mooy ba borom bi di wax naan wa isaa qiila lahum usjudu lirrahmaani qaalu wa man rahmaanu anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufuura borom bi kat gaayekat buñ leen waxee ne leen sujjootal leen raxmaan ñu ne luy raxmaan waaw sujjootal leen yàlla gaaye ne kan mooy yàlla nga xam ne dañuy lànk rek bañ a sujjoot mën nga caa déggee yow mi jàng ba agsi foofu nga yëg ne balaasu sujjoot la nga sujjootal ko juróom-ñeenteelu place bi ci place sujjoot yi ci alxuraanul karim mooy aaya ja ne ci suuratu namli te borom bi subxanahu wa taala di wax naan allaa yasjuduu lillahi allati yuxriju alxaba fi lsamawati wal ardi wa yaclamu maa tuxfuuna wa maa tuclinuun allahu laa ilaha illa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim nga xam ne ku ca toll itam place la boo xam ne place bu ñuy sujjootal la moo nekkoon juróom bi juróom e, wala boog fukkeel bi mooy tolloog aaya jenn ci suuratu sajda nga xam ne e, ab sujjóot la saar wi tudd ci boppam borom bee ngi naan innama yu'minu bi ayatina alladhina idha zukiru biha xarru sujjadan wa sabbixu bi xamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruun yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo gëm ñoo gëm samay màndarga ñoo ma gëm man yàlla mooy ñi nga xam ne buñ leen buñ ma tuddee fa ñoom dañuy rot sujjóot waaye ñu may sabaal di sant seen boroom gaa yooyu moom du bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy rey rëylu duñu rëy rëylu mukk ki jàng ba agsi ci aaya jooju ci suratu sajda mu yëg ne foofu place sujjóot la waxoon naa la ne boo ubbee di jàng foo ci àgg te muy place sujjóot da nga gis màndarga mi waaye dañuy waxtaan ba agsi ci sujjóot yi sujjóotub tilaawa yóbbuñu ci ma taxaw ci fukki barabi sujjoot ak juróom am ci alquran yëpp fukkeel bi ak benn euh, dafa mel ne da ko fekk ci suratu Saat borom bi subxanahu wa taala di fa wax naan xaala laqad zalamaka bi su'aali nahjatika ila ni'aaji ila ni'aajihi wa inna kashiran min alxulataa la yabqi ba'duhum ala ba'd illa allazina amanu wa amilu saalixaati wa xalilun maahum wa zanna daawuda annama fatannaahu fastaxfara rabbahu wa xarra raaki'an wa anaaba foofu it palaasu la mooy fukkeelu barabu sujjoot ak benn ci alxuraan fukkeel ba ak ñaar borom bi wa taala eh, mu ngi indi ci suuratu fusilat wa min ayaatihi wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walchamsu walxamaru laa tasjudu lishamsi wala lilxamari wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun fa in istakbaru falladina cinda rabbika yusabbixuuna lahu billeyli wannahaari wa hum laa yascamuun borom bi subxaanahu wa taala na bokk na ci màndarga yi wane ne mooy yàlla sàkk gim sàkk guddi sàkk gim sàkk sàkk gim sàkk jant bi ak weer wi yàlla nee na nag bu leen sujootal jant bi bu leen sujootal weer wi waaw yooyu lum yéeme yéeme yéeme ay mindeef lañ maa leen sàkk na ngeen ma sujootal man mi nga xam ne maa leen bind te rik waaye na ngeen ma jaamu daan bu ngeen rëy rëyloo nag ba jàpp ne eh, eh, jombale ngeen ma sujoot bi yàlla nee na am na jaam yoo xam ne guddeeg bëccëg ñoom sàbbaal ko rek la ñuy liggéeyal muy malaayika yi guddi ak bëccëg sabal yàlla dong nga mooy seen liggéey. borom bi teg ne ñooñu duñ sonn duñ sonn mukk looloy seenub liggéey yow mi bëgg a bokk ci ñooñu bëgg a bokk ci ñuy góorgóorlu di màggal borom bi boo ci accès nga ko man nangu naa daal di koy sujjootal beneen sujjoot bi ci topp te mooy fukkeel bi ak ñett mooy sujjoot ba ne ci sóoratu naj mi te indi loon la ko démb bi may indi xadis yi nga xam ne wane na ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng na ko sujjoot boo demee ci suratu najmi da nga fay fekk fasjudu lillahi wa abudu booy jàng ba agsi foofa da nga koy sujootal fukkeel bi ak ñeent te mooy avant bi ci mujj ma ngi ci suratul inshiqaq alquran di wax naan wa ida quria alayhim alquranu laa yasjuduun yàlla nee na am na ci gaaye ñoo xam ne bu ñu jàng ci ñoom alquran duñ ko sujootal yow mi nga xam ne bañ ngaa bokk ca ñooñu boo ca accès foofu place sujjóot la fukkeel bi ak juróom te mooy bi ci mujj mooy ba nekk ci suratu al alaq mooy iqra te mooy fa borom bi subxanahu wa taala di wax naan wasjud waqtarib wasjud waqtarib foofa booy jàng ba agsi fa danga koy sujjootal mbokk yi fukki place yi ak juróom ci alquranul karim képp koo xam ne day jàng ba agsi ci sunna la ci moom mu sujjoot képp koo xam ne day déglu alxuraan ba mu ci barab yi sunna la ci ki koy dégg mu sujjóot bu nekkee ci biiru julli bu jàngee ba agsi ci day dem sujjóoti maanaam du rukkoo wala muy def formalité yooyu day rot dem sujjóotali ko sujjóotu alxuraan jeeg njàng mi door dellu si jàngale ca topp door a rukkoo euh, siggi ca rukkoo nu mel ne nam doon jullee su fekkee danga ngaa nekk ci oto oto bi di daw nga jàng alxuraan ba agsi ci place sujjoot fi nga toog mën ngaa sëgg rek ba màndargaal ne sujjoot nga su fekkee da ngaa nekk ci avion noonu su fekkee da ngaa toogoon ci ab sees fu kawe te wàcc jàpp ndiwut ci yow ci yooyu demee noonu foofa ngay lunkale sa bopp ba wone màndarga muy won ne sujjoot nga ki nga xam ne day julli itam imaam di ko jiite julli su fekkee imaam day jàng aay yi nga xam ne moom laa wax léegi ci kaw nga xam ne dafa am sujjoot imaam moom bëgg nañ ci moom mu sujjoot bëgg nañ ci imaam mu sujjoot maamum nag euh, war na ci moom maanaam bu ko neexee nu mu sujjoot bu ko neexee mu bañ a sujjoot waaw fa in sajad fa in sajada wajaba alal ma'mumi ittibaahu loolu boroom xam-xam yi dëppoo dañ ne bu fekkente ne sa imaam day jàng ba ak ci barabu sujjoot sujjoot bu boobaa day war ci maamun mu topp ko waaye su fekkee nag imaam sujjootut yow mi koy yow mi toppoon ci ginnaawam bu boobaa doo sujjoot su fekkee euh, maamum dafa sujjoot maamum dafa bañ a sujjoot ànd ak imaam te fekk moo ko tey dañ ne bu boobaa ak julleem day yàqu maanaam imaam di jàng ak ci barabu sujjoot sujjoot maamum lànk bañ a sujjoot ñu ne bu boobaa batalat salaatuhu ndax topp gi ngay topp sa imaam waajibatun lu war la su fekkee nag dafa réere sujjoot boobu amma ida kaana jaahilan bi sujjoodil imaam bi an kaana yu yusalla baidan anhu fala tabtulu salaatuhu bi tarki hi mutabaatun lil imaam su fekkente ne imaam day sujjoot sujjootub ku jàng alquran maamoom sujjootut ndax yëgu ko maanaam xëy na daa sori lool jàkk ji sori lool imaam bu boobaa julleem nga du yàqu waaye bu fekkee dégg na ko xam ne imaam a ngi sujjoot mu lànk bañ ko caa topp bu boobaa julleem day bu fekkee e, maamum daf ko yëg dem di sujjooti waaye dajeeg imaam di yëkkatiku la war ci moom mooy mu topp ko waaye du sujjoot moom dong du sujjoot moom dong loolu daa wuuteeg sujjoot bi nekk ci ci biir julli sujjoot bi nekk ci biiru julli bu fekkonte ne maamum sujjootu ko imaam sujjoot ko ba imaam di siggi bay taxaw tombeek moom muy door a day sujjoot ba pare door a fekk imaam ci taxawaay ba waaye du ko bàyyi di ànd ak imaam sujjootub tilaawa nag sunna la sujjoot bi ci biir julli gi farata la te topp gi ngay topp imaam farata la te farata moom la jiital ci sunna loolu mooy sew-sew yi nga xam ne moo am ci ki topp ci imaamam muy jàng aaya joo xam ne daa am sujjoot am na geneen gendeeku goo xam ne am na ci mooy su fekkee al imaam Eh, dafa sujjoot ci biir julli gi sujjootub sujjootub kuy jàng sujjootub sujjootub ku jàng ba agsi ca daal di sujjoot ñi ne ci ginnaawam bari lool te buñ ko defut mën naa indi ay réeroo la gën ca moom mooy mu bàyyi ko jël weneen saar woo xam ne amul sujjoot boobu maanaam li ma bëgg a wax mooy tey jàkka ji daa fees a fees a ba ci biti lu mel ne jullik àjjuma lu mel ne jullik ajuma wala xew-xew bu mag nga xamante ne mbooloo mi bari nañ bari waayu mbooloo mi tax na mën naa am bari na ci seen biir ñoo xam ne xamuñu àtte bii xamuñu lu xew imaam di jiite ajuma jàng saar woo xam ne daa amub sujjóot ci biir te am na ñoo xam ne ñu ngay fu sori ndax ajjuma ak ni jumaa yi di feese mu egsi ca daal di e, ñëw di sujjóot mën naa indi ay jafe-jafe diggante ba nit ñi mën naa am ñenn ñi duñ comprendre lu imaam def bu ko defee mu indi ay werante ñenn ñi duñ ko yëg mën naa jaxase julli gi ndax bu jàng ba mu yàgg mu ne allahu akbar te mbooloo mi ñu bari seenuñ ko dégguñu woon rajo yi bu baax mën naa am dañuy yaakaar ne daa rukkoo ndeke daa sujooti sujootub sujootub sujootub kuy jàng eh, sujootub kuy jàng moo tax eh, su fekkee ma ngay am daal eh, sikki sàkk ca loolu ndax bari waayu mbooloo ma day war ci moom nag mu daal di koy bàyyi beneen bi ci topp nag mooy daa war ci borom xam-xam yi jàngalekat yi ñu gën a leeral nit ñi seen mbiri diine ba nga xam ne ñàkk gee xam dootu doonati aw lay ci loolu ndax ab julit moom lépp lu aju ci jaamu yàlla am war na koo xam rawatina teggeen yi nga xam ne moom lay jaamoo boroomam am na koo xam ne tey boo ko waxoon eh, su jootub tilaawa mën naa am sax mosu def wala mos ta fekke fuñ koy defee di juli ba mu yàgg ñu di ko def te mi ngi ci biir yëf yi nag doon loo xam ne am jàngale la su jootu kon mi ngi noonu mbokk yi bokk ci yi nga xamante ne nii ci xeeti sujjoot yi la bokk waxoon naa ne su ma ci noppee danaa la wax beneen sujjoot boo xam ne mooy sujjootub sant sujjootub sant muy sajdatu sukuri dañoo sopp ki nga xam ne dafa am xéewal maanaam mbir dafa xew moo xam ne mbir mu ko neex la wala njàqare tegu woon ci kawam ñu teggil ko ko wala ñu yëgal ko xibaar boo xam ne xibaaru mbégte la xibaaru mbégte la mu sant yàlla mu sant yàlla xoolal loolu mu sant yàlla dañoo bëgg nga delloo xew-xew yi ci borom bi subxanahu wa ab jullit noonu lay def buñ la waxee xew-xew bu naqari nga delloo ko ci borom bi subxanahu wa taala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu ab julit da koy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw boo ko waxee te gëm ko euh, ñeggi ñeggi xol dootu ci topp damay faral di wax bu ñuy tàggee ne ab julit du am naqar ci ndogalu yàlla léeg-léeg ñu ne ah ñun de dañoo amu naqar déedéet loolu ab jullit du ko am ab jullit nag mën naa mu mettit mën naa mu mettit mettit mooy lu dal ci sa kaw te metti waaw naqar nag mooy loo xam ne dalaa nga di ko naqarlu bay jàpp ne nanga muurul woon a am opposé ci dogal boobu metti na nag mooy diis na rek diis na ci yow ndax wax dëgg yàlla tàggee nañ la koo xam ne eh, yàqalu fi dara su jootub sant mooy nit ki delloo yàlla njukkal delloo yàlla njukkal borom bi subxanahu wa taala nee na ñu bari ci nit ñi bu xéewal amee dañ may fàtte bu xéewal amee rek ñu fàtte yàlla waaye bu ñu amee jafe-jafe rek dellu ci man bu ñu amee jafe dellu si ci man ñooñu sax mooy yéefari yàlla doon wax waaye ñun léeg-léeg ñu def jëf joo xam ne léeg-léeg mu gën a doy waar jëfi yéefar yooyu ndax mën naa am boo amee xéewal fàtte yàlla boo amee naqar itam fàtte yàlla te amu naqar sax wala métti dellu siwaat ci yàlla sax baaxoon na waaye mën boo amee xéewal ne sax njàmbaar la lu metti bu dalee sa nga joxoñ aw nit ne ñoo la ko teg waaw ñoo ma ko teg cat la cat la lii kay cat dong la lii kay sëñ bi xamoon naa ne dana ma dal ndax nangam yow kat da ngaa jógut ci sa bopp yow boo moytandikuwut nga xam ne yàlla du am benn place ci sa jëf ji du am place ci sa jëf ji ki nga xam ne nag euh, dafa am xéwal sopp nañ ci moom mu sujjootal boroomam subhaanahu wa taala won ko ne ko maa ngi lay sant sujoot bu mel ne sujjóot bi ma waxoon léegi bi mu jàng alxuraan bu mel noonu lay sujjóot waaye jublu ci nag sant sant shukran li mawlaahu azza wa jalla waaw jublu ci sant boroomam subhaanahu wa taala abi bakr radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko am mbir masaana dikkal moo xam ne mbirum bànneex la ñu bégal ko ci am mbir nee na day sujjootal boromam subxanahu wa taala sant ko day sujjootal boromam subxanahu wa taala sant ko ñu ne laa diw day am na nangam te fekk nga yéene woon ko ko lool waaw nga toog ñu ne la sa doom ja mokkal na alxuraan sa doom ja nga indi woon ci daara ja muy jàng yàlla dogal na mokkal na alxuraan xanaa xamoo ne loolu teraanga gën koo rëy ci àdduna teraanga gën rëy ci àdduna ab julit am doomam fexe ba mbokk ci ñi nga xam ne wattu nañ téereb yàlla bi. allahu akbar teraanga gënta rëy loolu gënta rëy ci waajur wi am ko waaye gënta rëy ci teraanga juni di defal doomam waaw bàyyil sa doom alal baax na de ku ko mën defal bàyyil sa doom situation yu tax mu jekku àdduna baax na lool ku ko mën defal waaye bàyyil sa doom nag téere bi yàlla bi subxanahu wa mu xam ci aslëf rawatina mu mokkal ko fexe ba mu am ay jomb jomb ci jamono jii lu waaye defal njabootam defal ko mu am ay jomb jomb ko gën. waaw ndax ku amuti jomb jomb lu ne mën nga cee dugg te nit nag bu fekkee lu ne mën na caa dugg ci alku la jëm ëllëg yow mal xiyaam waajur yi nga xam ne dañoo yóbbu seen doom ci jàngukaayu alxuraan yi njàng alxuraan ba mokkal ko dañ leen di takkal ay takkaay yoo xam ne ñëpp leen di xàmmee dañ solal mbaxana ay taaji wurus waaw takkal leen ay takkaay ñu ne ca ngàngu naaya ñu seen leen xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne dañoo nangu woon a muñ ay guddi yoo xam ne léeg-léeg gisuñu seenu njaboot ndax njàng ndax bëgg ñu téere bi yàlla bi ñi ñooy ñi nga xam ne buñ nanguta muñu guddeet dañoo nangu woon a génnee seen alal waaye ndax seen doom bokk ci ñi nga xam ne dañuy man téere borom bi subxanahu wa taala xéewal gu rëy rëy la danaa ci mas a ñëw waaye nag mu yëg xibaar bu neexee noonu damay wax rek ci xibaar yu neex yi ma natt loolu ndax loolu daa bokk ci li neex ci man daa bokk ci li neex ci man ndeysaan sama mbokk male eh, sëñ loo nekk fële ci sabi xotaan nee na ma daara ji da daan méttee méttee métti ba damay bëgg a doon xarum tabaski ñu tabaskee ma ma ne ko lool metti na di mu ne ma weesu woon na foofu sax ma ne ko léegi nag mu ne ma léegi kay moom tubaarkàlla waaye xam nga ne coono mënta weesu lool di daara ju méttee métti nee na ba day mujj bu tabaski jotee ba ñu rendi xar yi am xar rek lay bëgg a doon ñu tabaskee ko ne ma duñ ci yem waaye e, sëñ sëñ bi bu ma saan a génn ñun ñëpp dañuy ñaan rek mu accidenté xanaa lool loolu moom fala fala kiimaan mën na yem nga xam ne sëriñ bi lay jàngal sax bu génnee ñu ñaan sëriñ bépp faatu ma ne ko léegi ñaan gi dana nangu mu ne ma déedéet ñaan gi du nangu ndax ñun ci caaxaan rek lañ nekkoon te sëñ bi moom ci farata la nekk waaw sëñ bi moom ci farata piir la nekk ndax mooy farata yi def ci ñun alxuraan ñun nag ci caaxaan lañ nekk mooy li muy dafa metti ci ñun rek ñu naan boo téeñee téeñum ngeer sëb sëriñ daara day day day faatu ndaxam ne foo toll téeñoo téeñum ngeer ndax yaakaar ne bu faatoo njàng mi jeex bu siburoo sax bëgg mu ndax gëj gi nga koy gëj a gis ci daara jeg yu metti yi ala xaal ki nga xam ne xibaar nañ ko xibaaru bànneex euh, dafa bokk ci li war a def mooy sujootal borom bi subxanahu wa taala ki nga xam ne dafa amoon jafe-jafe dafa amoon jafe-jafe jafe bi jeex mu sujootal borom bi subxanahu wa loolu mooy sujoot boo xam ne sujootub sant la sujootub sant borom bi subxanahu wa daa bëgg ñu di ko sant defe naa boo demaatee ci màggal. looloo ko indi woon ndax Serigne Touba daa yëgoon ni xéewal gi mu am mooy tubaab bi bari nañu jaxasoo ak ñoom ñoo xam ne seen programme yëpp a yàqu mu yëg ne jaxasoo na moom borom bi defal ko tawféex ak sutura ba programme am yàquwut jaxasoo na ñoom yàlla dogal mu dem ba ñëw dese ak ngëm yàllaam waaye loolu yëpp nag mu daal di fàtte boppam yëg ne du ak njàmbaar du ay pexe du ay lijjanti waaye tawféexi borom bi la subxanahu wa taala jum ko defal yoo xam ne daan na ko defal aw gaayam bokk na ci ñim ko defal mu ne nañ ma santle yàlla baat boobu buñ ko firi woon ba mu leer ci bopp yi bu baax a baax borom bi subxanahu wa dana am ci ñun place bu rëy ba nga xamante ne du am ndend du am dendandoo ci ñun du am kuñ koy wétalal waaye dañuy def tam tax ñuy sant ñu koy sant ca la muy def sant nag moom santuk sukuru dañ koy sant borom bi subxanahu wa taala dañ koy sant nit ndax nee na ku santu nit ñi doo ma sant ndax borom bi daa baaxoo yi muy doxal nit yi muy defal nit mu koy jaarale ci nit nit di ko jot li nit ndax yàlla daa bëgg ñu yëgante ci suñ biir daa bëgg ñu yëgante ci suñ biir moo koo mën a dimbali euh, ba man koo dimbali mu yaakaar ndimbal ci yow dimbali woo ko yàlla mere na la waaw koo mën a dimbali mu yaakaar ndimbal ci yow nga man koo dimbali ta man koo dimbali te dimbali woo ko boo ko yëgee boo ko yëgul mere na la ndax julli yaag koor yaag yëpp benn formation rek la woon ci yow mooy li li ñëw ci yow li ci ëpp say soxla nga mën ko bokk ak jaami yàlla moo tax muy wax ëllëg ma lax yaa am nit ca àdduna tawatoon naa te seet si woo ma waa ji ne yàlla yow ngay borom asamaan ak suuf di borom sañ-sañ yi yow kay euh, sori na la moos yellut ci yow ngay feebar mu ne ca àdduna de diw feebaroon na di sama jaam nga mënoon koo seeti te seeti woo ko nga dégg ci ne kon yàlla mën na laa wax ne la am na bis kër ga ci tàkku fa e, sama kër te joxoo ma dimbali woo ma dimbali ma léeg mu am léeg-léeg fi mu ne nga xëy suba ni waxtaan wi jeex balaa naaj li message la ne la yàlla xam na ne kër gi ba ma xëyee ba léegi lijjanteegu ma ci nuru fee tàkk ci nuru fee tàkk néew na nañ ma baal bu baax a baax nag ci misaal mi ndax léeg-léeg bind baa fi aksi looy xëy suba ba ngoon jot te doo dégg loolu léeg am ko xamante ne ay ordonnance lay foto yu baree bari yónnee la ndeysaan am koo xam ne danaan damaa war a jalisi yëf yi yëf yi dëgër ci man am am am am ndax it yàlla day dogal nit buy bu demee bay sàkku ndimbal fa mu ko yaakaare lay jëm te la nga taal rajo bi dégg Oustaz Alioune Sall muy wax wala nga dégg ku mel ne moom di waxtaane waxtaanu diine nga njortu ne moo la tane wala war na laa mën a lijjanti booy sàkku ndimbal ca kooka ngay dem Euh, nañ jox nañ ñu jox ñu jox ñooña waaye ku mën a dimbali nit ka nga tane na nga ko dimbali ci la nga man ndax bis dana ñëw alal dootu fa jariñ amuk jot dootu fa jariñ waxtu dootu fa jariñ la fay jariñ mooy la nga njëkkoon a jiital waaye nag ñuy delloo lépp ci sant borom bi subhaanahu wa taala yal nañu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla defal kendaluk jàmm yal nañu yàlla defal sutura ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall moom la ñuy bàyyee toogu bi mu ànd ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alih kama la li kamalika wa adada kamali seen bokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa